la. Moustapha Ndiaye. kon ni dañ la doog libéré nii prison nga jógee nii. ah grâce présidentielle ah, ah d' léegi nag yow cour am na mais xamu woon cour fa am na moo tax ah, kon prison nga doxee nii ah, kon rëbës nga foo foo bëgg ñibbi nii yëmbal nga a dem quoi si prison bi coow kese ñaata mois nga fa am trois mois rek nga def si prison bi ok donc léegi da bëgg a dem ni euh, Pikine ko d' accord léegi dinaa la jéem a woon pik euh, yoonu Pikine bi nu mu féetee ok léegi looy wax sa mbokk yi comme prison nga génne loolu leen di conseillé. sama mbokk yi man de yoon quoi. ah yaa ngi si oto quoi say say parents nga dëkkal. ok waaw yàlla baax na donc yoonu jàmm. ok merci.